bu ñu yàlla mayee teraanga waruñu toog ñu croiser suñu bras donc dañoo ne nekk ci secteur de de de de secteur d'activité mën mënuñu wax jëf lañ mën a mënee donc jë jë jë jëf yooyu nag dañ ko ko war a yaatal bu ñëpp xam ni Sénégal mënul dox. tant que que nit ñi bàyyi wu ñu wax di jëf te loolu ñun dañ ko gis si président dañ ko gis si président de la République donc xam ni lu ñuy jaay jaay jàppale président de la République mooy xool li nga xamal ni ci lii moo ko may Thiès tey da dafa laaj lu bees dafa laaj ay intègre ay ñu ko yow tey tey tey dëgg donc donc tey boo gisee ñu mobilisé wu ñëpp ñëw tey donc topp c'est parce que langage de vérité la tegal donc loolu donc loolu moo tax lu ñu mën a def def porte porte à porte sensibiliser population bi war war war leen ni président à un un un programme boo xamante ni aussi lépp lu ñu jeex jàppee mooy një një njëriñ njëriñ mooy taw bi donc foofu ko la ñuy sukkandiku pour le président de la République mais derrière le docteur Cheikh Cheikh moom la lañ farlu ak gëm-gëm ak waaye xam nga Thiès xëyu ndaw ñi soxal na ñu ne surtout wax Thiès wax nga waa saxaar yi chaîne bi lan la Abdoulaye Dièye fas yéene def si fan. donc ñun parce que loolu lañu fekk mooy eh, eh, créer ay emploi donc tey man euh, euh, euh, li ma gën a mooy li may jot. département d' emploi wax dëgg suñu bëri. donc donc moo moo moo tax ma ni kat ñun boo nañoo jóg te taxaw xool kees bi lan moo fa manqué parce que tey kees bi tey wax mooy chemin de fer chemin de fer il a absorbé presque quatre-vingt pour cent jeune kees chemin de fer loolu liggéey donc tey moo moo moo moo moo moo moo ma loolu suñu pour pour politique la su di di dinañ ko wax fépp ba Thiès tey jox moom mooy su chemin de fer ak yeneen pro projet yooyu yoo xamante ni war nañ ko war indi pour que ndaw yi am si duñ jàpp pour que. Abdoulaye lan mooy relation ak yeneen responsable ak affaire ak benn bokk yaakaar bu ñu demee ko ngeen wax ngeen soutien ngeen mais mooy mooy li ñu tax a jóg mooy de la République te responsable APR waa benn bokk yaakaar ñëpp ñëpp tey li leen jóg mooy liggéeyal président de la République te li ku nekk ka da bay sa waar donc waar bi bi yaatu na ñun li mën ñu ko def ñoom fu ñu mënul yegg ñun dinañ jëm def tuur ba yegg ba pour ñëw jël ñu am jëli ko ko foofu. mais am na ambition politique soxla woon nekk député wala maire Thiès. pour pour pour pour l' instant ñun li ñu ñor mooy le développement de Thiès parce que ñun. ñu liggéey di sant yàlla li li li ñu ñor mooy Thiès ñu jël ko jox ko le de la république mu mu delloo waat li li li li mu am si projet ci yéene indi indi waat dëkk bi ndax.